gaar ba benn pukus la woon rek bu fa nekkoon mais c'est parce que président Macky tabax na ba dara am fa moo tax ngeen am lu ngeen war a mën a yàq kon gàcce nga laama le président Macky Sall parce que nag la yàlla doon wax naan mais ñu man yàlla ba mu wax naan moom mi sàkk sàkk gu njëkk gi ndax tëlee na ko waaye pour mu sàkk sàkk gu mujj gi ba gaa yi di sikki sàkk ndax yàlla dina dekkal jaam yoomal xiyaam wala mooy leen ndax moom yàlla mi sàkk doomu aadama ci lu dara mune ko kun fa yakun ndax mom yalla tere na pour dela delaw ak yowal qiyam dekkal ko bala bala qadirina ala an nusawiya banana, bala qadirina ala an nusawiya bana yalla mo gëna capable pour delawat doomu adama jusqu'à yi nga xamanteni moom moy ay empreinte digitale yalla yàlla mën na parce que mom mo sak misal bobu rek moy ñëw ba ci président Macky Sall parce que mom président Macky Sall mën na parce que xam-xam bi mu amone mi ngi fi bëgg-bëgg bi mu amoon mi ngi fi mën-mën bi mu amoon mi ngi fi moom tëlewut kon fa amul woon dara mu def fa dara fa amul woon ay gaar mu def fa gaar fa amul woon raay bu baax mu def fa raay fa amul woon BRT ñu naan BRT ba ngeen am BRT bu ngeen yàq c'est parce que tout simplement benn waaye fa jaar defar ko kon bu ngeen ko yàqee mën na ko defaraat université na meloon ngeen doon jàng ci anam bu bon mu ñëw fekk leen ni ngeen nekkee ci anam bu bon mu defaraatal leen ko ba ngeen niroog ay étudiant de par le monde amul étudiant bu étudiant sénégalais di ñe di ñee di yem amul parce que ñu université yi président Macky Sall dafa ñëw fekk ay pavillon yoo xamante ni démodé dépassé obsolète archaïque mu ñëw indi ay pavillon yoo xam ni yu bees tàq yu mucc ayib yu méngoo ak jamono étudiant yi di jàng jàng bu méngoo ayib mu wàññi leen di ko restaurant ba nga xamante ni bu méngoo lu ak nga xam ne mooy seen pouvoir d' achat bu ko taalee lan c'est taal seen alal ngeen parce que Macky Sall jàng na ba jóge fa condition yi ngeen jàngee bokkul woon ak conditions yi muy jàngee il a il a tant fait pour vous mettre à l'aise vous voulez être dans le malaise pour apprendre vous voulez être dans la misérabilité pour apprendre vous voulez vous ne voulez pas être dans dans ce que vous devez être vous voulez vous voulez être dans le banditisme estudiantin. donc loolu bu fa amee ba ngeen war ko mën a c'est parce tout simplement que président Macky Sall jaar na fa defar université ba ngeen gis lu rafet lu ngeen war a mën a tout cela répond à quoi que nous qui entreprendre tambalé ci dara nous, 10 10 000 francs Wout 20 000 francs Wout 100 000 francs million indi investir yow investiroo dara nga ñëw jël nga dévaliser ko génne ko ka doon liggéey donc yooyu yooyu ñuy def ñuy sens au fait c'est-à-dire que amul sens mais heureusement on a un président bâtisseur bo xamante le mu meuna def mi ngi koy def mais on a en face de nous ñan lañ am suñu kan xam nga Pastef au fait lañ doon wax naan bonnes lippoon xalam demoon na bay neex buum ko dog na xalam demoon na bay neex buum ko dog hein? dama nek live de moo tax ma lay couper wa ah, d'accord may leen ma tudd ma ko ne pas déranger quoi xam nga pasteur li ñaan xalam demoon na bay neex buum ko dox na dañu am suñu kanam parti bo xamanteni ni dañu am système bo xam dañ ko réussir won ba noppi mu déssé len nak dernier dernier virage bi fan mbir mi yaqku ñu dajé ak saar moy dama ni wax légui technique de technique de propagande endoctrinement bi nga xamante mom la secte yi am parce que Pastef secte la du parti politique secte la secte bo gis dafa am technique d'endoctrinement endoctrinement li ñuy jëlee benn mbir def ko ci bop doomu adam ba mu yaakaar li amul leneen lu ko gën mu am technique bo xamanteni ni technique de propagande la nu ñuy mëna jallé sen cadeau ñu am technique bo xamanteni ni technique la bu ñuy tijjee sen sen nit bu ñu xool nga wax idée contraire ñu saaga la c'est-à-dire que ki nga xam ni moom la ñuy tànnee ñu koy woowee la figure exceptionnelle dañ koy def un homme exceptionnel c'est le seul capable de nous sauver moom rek mën a sauver gars yi Ousmane Sonko au début loolu lañ ko def dañ koy teg ne c'est-à-dire nit ki ñu tànn ñoom c'est le seul bi nga xamante ni moo mën a sauver gars yi il possède des compétences boo xam que nul autre ne possède sa parole ne peut souffrir d'aucune contestation maanaam Bob mooy bi jiitu dañuy jël benn nit def ko ko xam ne du juum def ko xam du jawat la def ko xam waxam lu mu mën wax même bu nekké fenn la sax ñu ne baax lool moy endoctrinement ba moo waral bu ngeen xolé dans tout secte yi nekk ci aduna bi yépp bu ngeen xolé ñu melni ñom Abou Aboubacar Chakaw bu nga ñu mel ni ñoom ñu mu tudd sax ñoom ñoom ñoom ñoom benn laal bu nga xoolee ñu mel ni nee na dañ leen jël maanaam dañ leen maanaam dañ leen def ñoo xamante du ñu juum lu ñu wax noon la nit ñu topp seen ginnaaw boobu mooy bi jiitu Ousmane Sonko loolu lañ ko defoon mu sell ni maanaam boobu ñëwaguma ci maanaam Ousmane Sonko waxam lépp lu mu wax dëgg la c'est le meilleur àdduna ba mu daj moo ci gën Sénégal ba mu daj moo ci gën moom moo mën a sauver Sénégal boobu mooy bi jiitu ñaareel bi mooy. ben répété dañuy dañuy faral di bamtu un message xam message bu vide la message bu flou un message à outrance ay phrase yu ndaw wala expression yo généralisante man dañuy dajale ay wax yo xam dañ koy un don de soi pour la patrie jog un don de soi pour la patrie nguur ma de nangam sangam nangam sangam dañuy dajale ay slogan yo xamanteni slogan yo xamanteni c'est vide parce que ki ki war ni. un don de soi pour la patrie dafa am loo xam moo ci war a jiitu ñi ko roy topp ci ginnaawam bu dara askan bi soxla ko wala askan bi taxaw pour mën a am lolu nga taxaw nga nekk mais dañuy développer ay ay xeetu wax ay xeetu slogan bu ngeen Usman Ousmane Sonko li ko wër yëpp slogan la Ousmane mu sell bi Ousmane mu dul juum Ousmane mi nangam sangam moom mi nangam sangam don de patrie pour dañuy créer ay slogan loolu mooy ñaareel Pastef dem na ba dugg ci bopp booy ba créer loolu anti système ñi fi nekkoon ñëpp c'est des corrompus ils sont pas des patriotes c'est des lâches loolu mooy ñaareel bi ñetteel bi mooy une quête nébuleuse c'est-à-dire on va atteindre une chose mais on ne sait pas quelle est cette chose maanaam mooy benn quête nébuleuse li ñuy wut kenn du ko xam maanaam dañ naan naan victoire bi jege na projet bi projet bi projet bi or li ñuy projet bi ñuy wax kenn du ko xam c'est-à-dire xam projet de c'est quoi le projet pastif Je y yow mi yow mi ànd Ousmane Sonko pendant presque 10 ans xamoo la mooy le projet pastif. les solutions c'est son livre Ce n'est pas le projet d'un parti politique maintenant la est le projet pastif xam ne sais ko C'est une quête nébuleuse c'est-à-dire euh, nous une quête nébuleuse on va atteindre une chose mais on ne sait pas quelle est cette chose benn bi beneen bi mooy quatrième bi mooy s'appuyer sur l'insatisfaction humaine pour ñu mën a arriver nag seen but dañuy wéeru ci li nga xamante ni mooy doomu aadama bi li mu bëgg am te jotu ko day ñëw fekk ki nga xam ne amaana li jàng jàng na ba mokkal ay lijaasaam war a am xëy xëyu ñu wéeru ci moom ki nga xam ne bu xëyee souvent du am lu mu jëndee café ñu wéeru ci moom c'est-à-dire mooy loolu mooy s'appuyer sur l'insatisfaction humaine ce que je n'ai pas pu ce que je n'ai pas

li waroon tax man suma jangé paré am liggéey no foot bi ki la diw mi la loolu moy dañuy wéeru sur l'insatisfaction humaine sixième bi moy un discours unique et le refus de la contradiction Ben discours lañuy ñuy am te bëgguñu ko leen Un moy moy un discours unique et le refus de la contradiction bëgguñu Ousmane Sonko bëggul contradiction ku lu ko and ak mom bu ngeen ko sétlo bëggul confront bëggul contradiction ñom nañuy wax nga naan waaw rek mais tant qu'il parle ya waxal waaw rek bu wax déedéet buñ nekkee ci place su ataaya bi boo Ousmane Sonko d'accord mak mom ci li ñu yuuxu la boo ne Ousmane Sonko lému def ni yuuxu la Ousmane Sonko warul juum warul dem na suite boo ñu la mo tay même bu seeyoon sax ak mille fois même bu seeyoon sama sœur bëgg na lolu moy ça dit dire que il n'aime pas la contradiction c'est-à-dire un discours unique et le refus de la contradiction ce que les autres disent je n'écoute pas j'écoute ceux qui sont avec moi c'est-à-dire li keneen di wax duma ko déglu ñi farag man lay déglu lolu mo waral bu gene seetloo buñu ñu ni même bu féké ni Clédor sen criminel la buñu ñu ba tejj ko mais tant que mi ngi wax pour intérêt Ousmane Sonko ñom mom lañu andal tant que gis nañu nit ki mi ngi nekk sen intérêt bop ñom tant que gis nañ nit ki mi ngi mi ngi leen amal njëriñ même bu nekké ni koku bon la pour Sénégal même bu nekké ni koku musul baax pour Sénégal non wallaal azim tant que mi ngi wax ñom liñ bëgg dañuy and ak mom lolu moy un discours unique et le refus de la contradiction ce que les autres disent je n'écoute pas j'écoute ceux qui sont avec moi beneen bi mooy création d'une identité visuelle les membres doivent se reconnaître entre eux et se considérer comme supérieurs bu ngeen xoolee l'Allemagne nazi. bu ngeen xoolee li nga xamante ni moom mooy l'Allemagne nazi. c'est-à-dire que ni dañuy am benn identité ñoo ñëpp koy niroole c'est-à-dire mooy création d'une identité visuelle identité visuelle bi mooy ñoom ñëpp ñoo niroole benn affaire gis ngeen bracelet yi gis ngeen nangam gis ngeen nangam dans identité visuelle la ñuy am c'est-à-dire que mooy les membres doivent se reconnaître entre eux et se considérer comme supérieurs bu ngeen xoolee tous les grands dictateurs yi jaar ci àdduna bi sax ma wax leen ko muy Staline muy Mussolini muy nu mu tudd sax muy euh, Hitler ñoom dañoo amoon benn identité. dañoo amoon benn idée xool la drapeau nazi mooy seen identité fuñ ñu tëg fu ñu tëlee rek ñu ne nangam sangam dañuy am benn message mooy lan la race supérieure la race aryenne. fii fii tamit noonu la patriote yi patriote yi patriote yi un discours populiste donc loolu mooy loolu moo nekkoon ci Pastef bi mujj la croyance en un complot ourdi par les forces occultes les forces sociales politiques et religieuses classiques foo fekk ñuy def loolu dañu am y a motif mooy lan loo wax le complot d'état loo wax le complot politique loo wax le complot social loo wax le complot religieux Madame classique Les plans xam ne dañ ko fay pour complot pour le ko ay doomu donc la croyance en un complot ourdi par les forces sociales politiques et religieuses classiques ils sont nos ennemis et il y aura bientôt une guerre entre eux et nous nous gagnerons parce que nous sommes dans le vrai lañ donc voilà li nga les sept composants nga les sept techniques de propagande d'endoctrinement caractéristiques à nga xam mooy caractéristique ay secte donc pasteur la du parti politique loolu moo un parti politique se défend par des